Ngom ak Jéeri kër Papa Malaw fii la lépp yi xewee <laughs> Papa Malaw lan la lu xew luy sa problème. jaaxle rek booy léegi laa xëy dugg biram directeur woo ma ne ma entreprise dañu faa luubal xaalis bu bari te fu mu nekk ni maag sama juróomi moroom te sama tur nekk ci kaw fi mu ne nii neen naa ko jox ay caagam yëpp. caabi. instant yi dàq nañu ma yi. <laughs> mon amour xaalis lañ doogal seen entreprise loolu moom mënul ne yow fi nga demee fi nga ñëwee léegi la nga naan ay entreprise xaalis mon mu loolu mooy lan expliquer ma lu leer loolu mënul ne lan mooy loolu. sa séri somme bi mënu ma la wax ni mu toll man ba may signé xaw ma dañ maa gëlëmal xaw nu mu demee noonu dossier yëpp man maa ko signé. yëpp moo na mu signature laa dégg de ak ses propres loxo ñoom nga jël siñee ko papier yooyu loolu mënul nekk mais nag bu la dara metti tenket lépp léppay dañ loo dugg ci neen di nga ci génnaat ci neen te bu ma la ko xeri gëm ma nga gën ci man baax ci man yëre bu baax nga jox ma dàll bu rafet nga jox ma ne ma takkal sol dem wóor na yàlla di nga ci génn yow dara du la metti bu ma paree léegi dinaa woo sama tataa nu mu gën a gaawee ma woo ko téléphone léegi

jëkkër ju sagal nga xam nga jëkkër ay ñaanal jabaram mais man gërëm naa la ñaanal naa la lépp lu ma am war koo mën a jaay pour yóbbu ko ci sëriñ boobu dinaa ko def nga delluwaat ci entreprise boobu yow kenn du la lu yow kenn du la dàq danga maa sagal danga maa siggil dinaa ko def léegi. léegi naa la ko xamal loo mun a def nag na nga gaaw ndax cas bi dafa sérieux lool maa ngi ci salle bi. dara du critique ci yow sama jëkkër ji xam ne dafa baax ci man di champion di ma dundal di dundal sama xol bi lu baax mu def. kii daal man awma fayam bu soobee yàlla lii dama ciy jóg dama ciy jóg non ñun daal suñu Sénégal bi ne xaw ma ban Sénégal la mais saa yu ñu jaaxlee am nañ suñuy suñu suñuy suñuy yëfu bopp dañuy dellu ci maam ñi ñu defaral ñu ñu delluwaat ci suñu sago ndax lii dafa metti ku nekk ci bien jékki-jékki nga bëgg a jël ay bien ne ko dangaa def njombe mënul nekk sama jëkkër xamee wu ma ko yoon jaabir nag won naa la yow ne xam nga ni la ah. ah man nga xam nga ni man man xam nga ni man man boo génnee rek damay wéet nga ma bi rek bi rek juddu rek di mën fen juddu di mën fen pété man pété man pété mu doy nga sama doom ji ah waaye mu sama dom? ah man dama xam eh taaw bu góor yombul ah, bu góor bi fen ah, fen aka jafe xam nga lan moo lan moo lan moo mm. ah taaw taaw taaw bi fen moo yomb waaye bu buy buy bañ a fen maa law ah baax na laaj sama taw bu góor bi waaye. aw. doo gis. aw. lu xew. yow xaaral nga foo jigéen daal xudduus. lay lay lay. waaye kafe gi neex na de katam. dara waaw waaye yàkkamtu woon naa nga ñëw. Hmm. ah. xam nga waaw waay waay kafe waay kafe ngi nii. man ba nga demé ba légui nan ma fi café guñu xam. café gu saf jar ni simple. man café li la xam day saf jar café kessa ñu bañ ko rax waye café Touba gi neex na lén da xamal na la ko bëgg gi nga bëgg café ma doon jé pire moma tax dem ba Touba jang fa dañuy seggee café ak nañ koy joxé dem nga ba Touba. waaw jang ci ji. xam nga man dama la bëgg mat quatre femmes bëgguma nga xol buku nga buku bëgguma nga gis. man la kata. jéego mille fois bu mat nga ma ko. wax lii. ndax dérangement bi nga def mu jaral la bëggal sa sëriñ. Mm. mu jaral la nga xam man maa la bëgg café. dama xam nga ni murit piir bëgg café lool bëgg sëñ Tuubaa. Ah, bëgg café mu jaral la yow ngay sa biir bi. ba nga dem ba te la fay. ay bu doon defal seen seen borom kër ay roy leen bis bu ne ma wax ko góor soxorul. déedéet bu xolam bi seddee. Hmm. lu ne ci poosam bi rek. yaa ko moom billaay yaa ma moom. jéeg da mën ay yëf. <laughs> yaa ma moom naanal mu rees ak jàmm. waaw yow xoolal. Hmm. déet déet dafa nànk dafa tàng. gën génneex. yaa. muy yaay xanaa xamoon ne. feebar bi ñuy wax ci réew bi te mu lëmbët kafe gu tàng gi da koy dund kafe Touba billaay sikkuwul ah, ah, yàlla xam ah, yàlla xam na li nga wax nii kafe Touba kafe sëñ bi da see def mbóot de parce que sëñ Touba mu ñibbisee moom la def euh, euh, sërite ma ne ko jommi naa waaw ayo

billaay tata noonu la demee tata jommi naa jaaxle naa yow rek laa ci yaakaar. di dafa nànk waaw waaye léegi lu ciy pexe. te baaba bu ñu ko dàqee fee man damay sonn baaba taxaw na ma ci côté bu ne tata. yow de xam nga ni lu ma ci mën dinaa ko ci def baaba man baaba xamul jël xamul fu ñuy jële liggéey rek la xam ñaq jariñ dinaa ci jàpp sëñ ñeex dinaa ko woowaat léegi yow koy bu ne ci ma wola wa da ngay dal nak de xam nga yang mako doon wax di ma ko proposé mon ma woon temps mais nak serigne neex yitte woo naa ko soxla na ko tata ci moment yi la ko soxla nak moment yu catastrophe dinañ wat d'accord ah d'accord accord baax na incha allah tata. ah du jam kay. wa ayo. ayo wah, wah, wah. ayo dal la diligi. liggéey. ñu ne détournement dafa am ba taqalaale ci baaba ci kër ja. onze mille cinq cent. Eh, waaye sëriñ neex mi ma xam yàgg a jëflanteeg moom ma di ko booleeg ay nit di ci am ndam su ma ko booleeg sëriñ neex lépp dana faju ah man nag man nag damay bëgg a wax man yow boobu léegi li ngeen wax si sëñ ñeex garaaw na de. yow kii luubal ay millions. di loolu ngeen wax. ah luubalul. dañu ko ci takkal waaw mooy taqal bi rek xam nga société boo siy liggéey da lay jiñ te du lu rëy nga lu rëy la mhm, waxagoo dara mbaalu sëñ ñeex la la doy ah man de sëñ ñeex man jaaxal na ma sëñ ñeex boobu ba léegi ku koy tudd naan sëñ ñeex sëñ ñeex da war naa aay ponkal la ndaa naan kul fadri ah nee naa la ñun jigéen ñi ñoo xam roq yeeg ruqaat yi xam pax yi maalaw gajaga bis bu ci ne man la maay jàll sa ginnaaw waaye bu bëccëgee dee ma topp so ma toppee ma jitu rek do am la nak légui sëñ ñeex mom mhm. jéem a jokkoo ak mom mu ñew mu ñëw man fuñ mu toll nii xam nga tax sama jarbat bi mbaro hmm. mbaro rek mbaro ni mu mel te li ngeen wax si sëñ ñeex wax dëgg yàlla am naa si man dama ni woon sax ci sëñ babakar la koy yóbbu sëñ babakar job wax deug yalla ndax mom la xam sëñ babakar job mën na lool waye ku ci nekk da am tamit patch wu la yalla mayee mbaru ni mu mel ni sëñ ñeex jokkoo nag moom bu yàgg yow nee naa la. guddi te bu ñëwee moom sëñ ñeex dina ma dina ma fajal sama jarbaat. waaw waay maalaw maalaw nga jaga dama ne la guddi gi maay jàll sa ginnaaw waaye bëccëg deel jàll fii ndax maay def maay dindi. billaahi billaahi bis bu fajal sama jarbaat bi ba ba mu mën a dox. làmmiñ wi set sama kër ga sa fee ngumba ma may la. kër ga. <laughs>